jëf ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp noonu lañ koy ñaanale Serigne Amdi Modou Mbenda mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Ibrahima Fall Lamp yàlla suñu borom guddal ko guddal fanam wéral ko ba yéen ji jëm am ci liggéeyal Cheikh Ibrahima mu àggale ko ak njabootu Cheikh Ibrahima gépp di am mbégte ak contentement euh, ginnaaw bi ñëwee woote si fii ci centre euh, bi nga xam ne moo nekk Kër Baylaat ñuy wootee bureau numéro 23 incha allah ñu ñëw daje feeg yéen am yéene gis nañ vote bi mi ngi déroulé normalement wax dëgg fa yàlla ndax euh, nit ñi xëy nañ teel a jug ñoom ñëpp waaj ñëw ci bureau de vote yi fas yéene woote ñu am mbégte euh, nii daal bu ko déroulé incha allahu rabi ci kàttanu suñu borom ba fii ngoon leader bi nga xam ne moom lañ àndal muy le président Amadou Ba incha allahu rabi gis nañ ne ndamam dana yaatu lool ci. Sénégal dana yaatu lool ci département bi ak ko wër ndax nit ñi nag ràññee nañ euh, xam nañ dëgg ak i caaxaan ful boo xamante bi day topp ay nit nit kenn du ci sukkandiku da ngay xool qualité ful bi nga xam ne moo topp nit ki da ci am solo vote dafa am ñoo xam ne dañ koo miin xam niñ koy defee euh, defe naa ne waa benn Bokk Yaakaar ak suñu président monsieur le président Amadou Ba incha allah président 2024 Euh, ci kàttanu yàlla ñun miin nañ xam nañ naka la ñuy defee ay élection naka la ñuy def ba nit ñi mën a dem woote ji massivement incha allah kenn ku nekk dellu sa kër toog déglu résultat yi euh, loolu luñ miin la te noonu lañ ko fas yéene defee incha allah liñ naan xëdd woote ji ndogu sibile noonu la jàmm moom euh, damaa yaakaar ne kenn ku ci nekk war na koo sàkku ndax musiba ak ay boo ko sàkkoo doo xam fan la tàmbalee ak fan la yem moo tax jàmm mooy war a njëkk ci ci doomu aadama bi moo war a mujj ci doomu bi ñuy sàkku rek euh, comme def nañ yëfinit li nga xam ne mooy yëfi mooy yeewu dem woote ji kenn ku ci nekk dellu sa kër ñu déglu résultat yi incha allahu rabbi euh, lu yàlla dogal ndax dafa am loo xam ne nag mbirum suñu borom la muy euh, président de la république yàlla suñu borom mooy xool ku ko neex mu tabb ko ko donc loolu du mbirum nit ñun dañuy def yëfi rek mooy sabablu def li ñu war a def ci bañ ko war a defee dellu suñuy kër toog li ci des ñu bàyyi ko suñu borom waaye jàmm ji nag ñu ciy woo ñëpp ñu calme dem déglu résultat yi ki nga xam ne moom la yàlla suñu borom tabb te ñu ngi ñaan mu nekk suñu leader président Amadou Ba yàlla jox ko ndam lu sedd guy euh, ñu ngi woote nag ñëpp maase dal te xam ne jàmm moom li ci li ci mag ñu baax ñi daan wax loo am lu dul jàmm jàmm ko gën euh, donc ñu ngi sàkku ñëpp rek ñu ngi sàkku jàmm te xam ne jàmm réewum Sénégal miin na ko